man Guy marié Sagna may wax ak est ci terrain jatir bu nek ci Lindiane fi nga xamné fi Vous commencer bi marche pacifique bi nga xamné mo wara am marche bi marche pacifique la gis ngeen ñu nek suñu ay policiers lañu ay bérets rouges lañu bérets rouges yu ci ñin la bok dañ leen di comme nuñ ñi noté ñun francs par mois lañ leen di fay may lancé waat appel marche bi marche pacifique la ma am yaakaar si pour suñu pour assurer la sécurité de la marche suñu suuf jaay ñu doole ci suñu suuf suñu suuf jaay nous doole ci suñu kër toj suñu kër jaay ñu nous ci suñu nous jox ko jaay ñu doole ci suñu nous suñu nous ñu jaay doole ci nous élection nous suñu élection nous